arbitre bi nag mu ngay wax ak ñoom Bilal grand combat ba grand combat baa ngi noonu mu jànn dëkk suuf Senghor la grand combat baa ngi noonu arbitre baa ngay wax ñoom cat arrière bu ci kaw taxaw lu waral loolu mu ngi laaj ndax pare nañu arbitre pare nañu dimanche 11 juillet 2021 20h28 bu Boy Bambara ak Modou Dia bu prince moo tëgg borom PAVC events taxawal combat bi ñëpp doon xaar ñaari xale yu namante tey lamb bi caat Boy Bambara nekk États-Unis depuis 6 mois ñëw ne la affaire bi 50 50 la tolloo tolloo. Modou ne ko loo mënee xam naa ko loo mënee loo xam naa ko jour boobaa loo baax ma ngeer ko ndax xam naa la bu baax kon dañuy xoolal la wanante mu jëg gëtam Bilal lu waay doon jaay léegi mu lamb nii at bi si leen tàggatoo ak ñoom ne ni ñoo ci des seen supporter yaa ngi ne tekk reporter rek di wax tëggkat rek di tëgg lamb jaa ngi noonu waaye kenn du la 8 août Leewtoo production ak Pape Thialis Faye Boy Niang ak Tapha Tine bu na ko kenn nettali fii ci arène nationale lay doon ba léegi dem ci géew gi Bilal caat Boy Bambara ak Modou Dia bu Yoff demee wet Modou Dia moo doon won ginnaaw caat moo ñu won kanam Modou Dia ak caat Modou Dia bu ak Thiat Modou Dia bu Yoff ak Thiat Modou Dia bu ak Thiat round d'observation la Bilal wala lum doon kañ laay wax man Aba yàq na ma sama dër bi fa laa moom round d'observation la wala lum doon Bilal mbër yaa ngi déglu wante Mor bu Yoff ak Thiat Boy Bambara dangay léewtoo leen naan bu lamb ji jeexee Momo Dieng dana nekk en live ci arène nationale fas yéene leen bégal ci ñu dem ñu dem

moo ja coxas na léegi cat fayu cat coxas na léegi waaye dawul laaw la moo ja coxas na léegi sànni waat na beneen moo ja sànni waat na beneen cat fayu moo ja ak cat moo ja sànni waat na beneen cat jël tànk lay laxe la la mbakaaw am gauche droite baa ngi noonu Bilal gauche droite baa ngi noonu moo ja cat dooraana dóor dal moo debu yoof bu booy bambara moo debu yoof caat bu booy bambara moo de ak debu yoof waa Bantamba TV ci ginnaaw ngeen jëm sama ginnaaw toppal noonu. yee da ngaa juum xanaa dawal yéen mën na rek. bàyyi la ci kanam laaj laa Thiat Jokalante jëlal tànk ba lu mu nar Thiat ci Modou Thiat joxe jàppante Modou Thiat ak Thiat ne nii cat da koo nengeñ cat Modou Dia cat ak Modou Dia nengeñ baa ko sonal fu ne nii moom Modou Dia cat suqu na suqu na benn bët am laa ilaaha ko ngir mbot laa ilaaha illallaah lii la nii lii la nii waaw Caat Modja yàqoon na Khass Prince yéen a ngi koy bëre ci fulla ak ci jom kela yaa ngi génn Caat ak Modja Caat Modja fii baaw jërëjëf caat mu ja ba dajaral tànk ba lay la bàyyi loxo rajo am loxo ca ngeen ba moo ko caat mu ja lii caat mu ja par aywa arbi pusal waay caat mu ja tànk ca biir caat mu kalba kalba lay la xëy caat daan na Gargar tolloo tolloo Thiat daan na ko toj ci kawam Bilal Thiat daan na Modou Dia Thiat na nga bëre bi daan nga bi Thiat Modou Dia Thiat a ngi noonu Bilal ma Modou Dia daa jommi fu mu ne nii Modou Dia daa nangul jóg Thiat bëre na lu rëy Modou Dia daa jommi nii daa jommi ana Malick ñaa kaje sambar looy wax waa Yoff looy wax waa Yoff looy wax waa Yoff looy wax waa Yoff looy wax waa Yoff laa ilaaha illallaah li musul am ci biir réew Let's go. man dee sama yàlla ma dem mel ma xool essay gannaaw wuy ma wuy ma essay li ma bëgg wax mun ma ko wax fii. mais wax si combat bi wax si combat bi ñëw nañ nañ dese gàll ah, nañ ñëw kër ga.